yuñ ci mënti jël dinañ ko suivre ndax euh, am na ci triptyque bi nga xam ne ni moom la président wala sax gouvernement bi di doxalee mooy jub jubal jubbanti fu mu nekk nii mun nañoo wax ne dialogue bi ci cadre jubbanti la la la la nekk et puis créé nañ sax plateforme tuddee ko jubbanti et euh, effectivement euh, jubbanti baax na ndaxte kenn matul te dara matul itam nit ki wala lépp loo xamante ne nii. day tax ñu mën a vivre dans une société boo xamante ni dafay harmonieuse loo koy mën loo koy gën di defan loo koy gën di defaraat di ko jubbanti rek du doy parce que day permettre à ce que à chaque fois situation yi yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw te prévoir ko woon par exemple lu mel ni euh, lu mel ni report bi naroon a am ci élection yi situation bi naroon am ci élection yi loolu <laughs> suñu yoon prévoir ko woon donc am na yu bëri yoo xamante ne ni au-delà de euh, justice yi ñuy rendre yu demee noonu bokk bokk na ci li nga xam ne ni war nañ kaa xoolaat waaye man am na foo xamante ne bëgg naa fa attirer peut-être attention sénégalais yi muy te ñu yàgg di ko wax ah mooy euh, président de la république doole bi nga xam ne wala pouvoir bi muy exercer ci justice pouvoir boobu aussi tamit war nañ ko xoolaat rapport bi nga xam ne moom la président war a am ak justice war nañ ko xoolaat mu bañ a doon rapport boo xamante ne nii day permettre président bi nga xam ne moom c'est un président politique di mën di agir ci yenn ci décision yi parce que am nañ fi président boo xamante ne nii nee na dossier justice yu bëri moo ci teg concam loolu gis dégg nañ ko fi bëggatuñu gis président boo xamante ne nii day teg ay concam ci ay ci yenn dossiers gaa sax am na loo xamante ni mënul ñàkk wala kon ñu créer benn euh, média benn benn institution boo xamante ne peut-être mooy euh, mooy mooy saytu yenn médiation yi yu demee noonu mais de la à que ñuy dund à chaque fois benn pression bi nga xam ne day juge ci exécutif di exercer wu ci pouvoir judiciaire loolu war nañoo jéem a xool naka la ñuy def pour que mu mën a euh, mu mën a oyof wala sax ñu mun ko dindi carrément. wala bu même bu fekkee mënuñu ko dindi carrément ñu xool ay mécanismes yoo xamante ne mooy permettre à chaque fois ñuy bañ di wax ne euh, te loolu sax mooy permettre sax ñuy bañ ñuy ñuy ñuy bañ a wax ne euh, euh, justice bi justice la boo xamante ne dafa politique wala justice la boo xamante ne nii dafay am fu muy farak yu demee noonu et puis am na aussi tamit lu bëri loo xamante ne nii mi ngi am ci wàllum procédure justice yu ci ëpp. da ngay gis koo xamante ne nii euh, <laughs> damay delluwaat rek ci Birame li mu doon wax démb ka ngay xam ne koo xamante ne day sàcc ginaar ñu jël rek rawale ba ko fa fàtte ko am koo xamante ne nii day def délit bu gën a garaaw mais moom mu ci ay xamee nag yu demee noonu ñu baral ay mbiram loolu war nañ ko xoolaat am ci aussi tamit ci biir euh, li nga xam ne nii mooy wàllum euh, détention yeeg yu demee noonu war ko war war war ko war ko xalaataat tamit mi ngi euh, Birame mi ngi ko wax démb alternative bi nga xam ne nii moom la proposé par rapport ak longue détention yi nga xam ne nii nit ki ci boppam par exemple ku war a tudd tëdd quinze ans de prison mais kooku war naa warul mën a tëdd di nelaw di yeew di lekk ak naan rek ca prison ba war nañ ko mën a utal loo xamante ni wala war nañ ko mën a yóbbu parce que boo xoolee indien ak chinois dañ koy def seeni prisonniers yi dañ leen di jëlee seeni dëkk di leen indi fii ñuy def ay travaux am na chinois yu bëri yoo xamante ni liggéey fii nii koo ku ci nekk dee dee leen di seetlu parfois seen dànk seen dànk tànk yi dañ fay teg ay bracelet électronique c'est des prisonniers yoo xamante ne nii dañ leen jëlee seen dëkk pour ñu ñëw fii def ay intérêt général yoo xamante ne nii pour nguur nguuru nguuru nguuru euh, Chine lay lay dellu ndax accords yi ñu am yu demee noonu mais yooyu mun lañ ko am yooyu buñ ko amee fii dina permettre à ce que ñi nga xam ne nii ñoom ñooy prisonniers yi mais daleen di jàppale sax ci seen réinsertion sociale pour que bu ñu peut-être ñi nga xam ne nii par exemple bu ñu génnee ñu am ci lu ñu jàpp loo xamante ne mën na nekk ñi ngi naan que ne fu mu nekk nii euh, su euh, ñi ngi wax waxu bay ak waxu yu demee noonu loolu dina permettre à que ñu désengorger li nga xam ne mooy prison yi parce que prison yi dafa fees dañoo dañoo dañoo fees ba pare bëriwuñu dañoo fees bëriwuñu teg ci yaatuwuñu nous n'avons pas des prisons yoo xamante ne nii mën na yiir nombre bi nga xam ne nii moom la moom la war a am parce que boo déggee yenn ci boo déggee yenn ci ci témoignage yi nga xam ne ni moom la euh, yenn prisonniers yi di def mais tu as tu as mal cœur parce que le prisonnier même bien vrai que euh, ngeen baal ma rek ci ma def digression boobu ci prisonnier yi bien vrai que euh, def na délit mais il reste une personne il reste un humain am na dañ koy tuumaal waaw mi des yenn saa sax ñu tuumaal ko mais traitement bi nga xam ne moo am ci prisonniers yi amul fenn du dëgg du yoon parce que nit ki nit nga avant tout nit nga avant tout ñaanal ñu ko kenn nag yéenewuñu kenn li nga xam ne nii mooy prison yu demee noonu cas prison la la ñuy jël parce que mooy le cas le plus récurrent bi nga xam ne nii mooy ëpp ay témoignages moo ëpp ay mbir yoo xamante ne daf ci am Euh, euh, euh, ñi xaw ma ndax Alamine Senghor moo ko wax xoolal kan xale bi nga xam ne nii xamul dara di door a am 17 ans 18 ans nga dugal ko ak ay boolekaak ci benn cellule de chambre boo xam te ay kayit ñoo fa nekk mais kooku da koy mais kooku kooku kooku kooku da nga koy damm mentalement kooku bu génnee dafay instable ñaata prisonnier lañ fi gis ñoo xamante ne nii ñi ngi taxawaalu fii ci ñu leen dik ñu xam leen bu baax ñu def prison génn ngeen gis seeni comportement ay comportement yu instable la ñuy am traumatisme bi ñuy dund moo moo moo moo moo moo moo doy waar moo metti donc yooyu noonu yëpp war nañ ko jéem a xoolaat if euh, mu mu mu bañ a nekk rek dialogue boo xamante ne ni xëy na peut-être comme euh, et puis euh, di comme créer nañu plateforme ñu nga xam ne jot nañoo am expérience seen expérience bu ñu ko bu ko joxee dinañ xam ne wax dëgg fa yàlla mbir mi war na mën a nekk loo xamante ne day gën a nekk en profondeur day day solution yi war nañ ko mën a jëlee ci fi mu gën a xóotee pour permettre à ce que sénégalais bi wala sénégalais yi ah di bañati euh, euh, ñu koy waxatee sax euh, di bañati am lu lu leen metti ci wàllum justice. ak l'indépendance de la justice bi nga doon wax sànq foofu